nga wax sax ndax euh, bu ma la seetluwaan boo daan dem ci moom na ngeen daan def yéen ñaar. waaw waaw toujours loolu lépp da doon wane ci biir nit sax waaye li ma doon wax lépp mooy <clears throat> taalibe moom dangeen ngeen di dem wuti denc bu baax génn ko jàppale nit loolu lañ daan wax muy di ko wax ne que da ngeen di ñox. ku baax dem na ku tedd baax dem na ñu koy jaale ñépp di ko jaale àdduna yépp yépp yépp di déglu sunu kilifa yi rek jërëjëf. incha allah jërëjëf Youssou Ndour